ca kaw nooyal ba faf safu dër bul jàgg niw te bul warle lëf nangul nekkal di ko defare bul sikki bu ko bañ bul yàq jàppal sa jàpp say cër bul waroo ko ware saytaane am jàmm dox sa say bokk ak say xarit ngir bëgg laa bu wér yow di jaamu yàlla waxtu wu jot te nekk nag di liggéeyal sab sëriñ lu bari moyul lu bon kem sa kattan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moyul lu bon kem sa kattan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo jis lu dul la mu def moo dawlu ak moy te dab lu jub ku raw la mu daw nang baa mu jot la mu dab yàlla xamal li lefaf xamal ni kenn deful lëf yàlla daa la fi def moo bind jaamam bu nekk ak jëpp jëf ju mu jëf ku dee fi bindu di def lëf ndax mënul dara sax te bind man lépp def bul mereeti ku dof te kuy mereb dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof ba mu wér gën di reeka suruf fo seeru ab dof te man ko faj fajal ba mu wér njegam mënoo koo fajit ñaanal ko mucc ki yef ab dof te yul mu def ngir kenn beggula dof ak ndogal la guñuy nit du kenn musaf ko jub la ko baax ko saf koo gis mu def nag lu bon seytaane rekk ko fépp saytaane baaxul bu daqee nit ba kookale raw mu daldi wàññiku ciy gaayam di yoot ak a gëf day sàkk buntu bu ñàkkee buntu fawwu ci yaw mu sàkk buntu ci saw nit waande yàlla du xef day jéem a guddi garab buy lottu dal di garab ga ndax xob ya rot as lëf mu yóbbu ca lëf njagam dafay bëri tee moo seeti gaayu nu mooy xiiban yu bon la wut laf fa kay maye laf noo ngi fi mbër munu doy noo ngi fi mbër mu nu saf mu boole mbër yëpp gor pel yëpp far ni xëlëf ku nuy jëmeg bërë kay sóoroo du nu saf ngir noo ngi làq fi mbër moo xam ni man na ta def moo nuy fegal ku nu yàpp moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal ba nu bég moo nuy defal du nu def moo nuy fegal ku nu yàpp moo nuy musal ci lu bon moo nuy ba moo saañal sa nopp yi tey noppee ka mu di wéy bu diglu bul waxte bul xooleeti ngir maa ngi nit ñépp gis nañu ngir mii xam ko xam gu rafet ba noppi teggi ko wéy lor ngi ay waa ngi kenn fonkatul joxe koo gis day nirub tere tang di denc kay wuti yëf dex gaa ngi lab waa ngi murit yi war nañu ngir koo seeru bëgg na lëf te denc lëf niki man ay am na war yaa ngi ku war ñu war ko ku bañ ay nax te bañ ku ko war na daal di dellu ca kaw ngir maa ngi mbir maa ngi ku jàdd nee fi ko jidd yar bu tàng bu saf tey mbaa ëllëg jàdd mat naa mus lu yar yaa ngi ñàkkub yaray taxa mos ay yar ku bëgguli yar na daal jébbule léppam yar bu mat baa ngi jëm leen a jëm ci sëriñ bi faw ak ndigalam te jox ko mbir yépp ak jur gépp yi waa ngi sëriñ bi jox na boroomam jëkk tey li mu am boroomam it ni ko sam réew ak sapal gaa ngi bay naw sa sam ba mu jee noo toll nun ci fexe dal nag sunuy sas te bay sas yaa ngi añ yaa ngi ku nekk jox na la aw sas jox la ñam wu ko bay ba noppi nag di la xooli gët gëtam yaa ngi kurus gëtam yile foo jëm ñépp bokku la rus tefab la teg la ca kaw nan soobu ngir maa ngi xamal ni yàlla bu tijjee buntu kenn du ko tëj te moo la tijjil la sal buntum ngërëm ngërëmal ngërëm ko sant ko ngir canta ak ngërëm ku ko def mayam nga dolli ko waa def sant kat bariwul koo gis boroomam da koo may may gu yéemu gu rëy muy jooy kay jallu lii moo tax ku am bëriwul xiiwal dugub la ju ndaw teg cant koy na tëxal ngir cant moo di taw xiiwal ku sant doyal koo xam ne sant na toolub xiiwalam du maral ku sagganeeg cant nag toolam ba dal di maral koo xam ni may na la boo santee mu dolli la lëf kuy sant fa wu am yàllaa ko yokku alal koo xam ni mboole moroomam yëpp dee mu des muy xul te santul boroomam yàlla lii rafetul te yàlla mii bu ko sooban kenn du jooy ak xul kuy jooy ak xul bu dee wan dootu jooy ak a xul ak cant moo gën ku santul mooy na yàlla bu biir teblar mooy sanga koy tax muy dajee ki mbugal sëriñ bi yàlla nan fegal nun yépp xeetu mbugal fegal ko képp ku nuy àndal te far nu bégal alhamdulilahi fas naa yéene tàmbali tey ak cant goo xam ne dootul dog te noo gi te noo sax bu doge may sant faw waka may sant faw ndaxam ngir yàlla may na ma ak noo at yu yàgg asal koo ni xam nag may am nam toll kooka du man saa may gi xooma ka man saa gi ëpp na xel man mi du ma dof yéefar te di fu ma xas te yàlla mii bu ko sooban yépp bokk ma dal man gumbawul laggiwul wóppul te ñàkkuma lëf lu dul lu bon gaay man mii la tawat waratul gëmmal ci lépp lu ñuy aayee ka bañ ca ragal ak mooy ak mooy moyul gis lu neexul yàlla yow ci sa bët tabil saxaar ak ndigal faw ak sa lépp te bul génneeti bul génn génn génne ay la ci nit yamal ci saw dig te bañ koo weesu mukkati yow koo xam ne yam nga ci saw dig wenn ay du la jot na noppi bii diglu wax joo xam ne am na njariñ te tëx ci wax ju ñu santul fawum foo mën a jëm bàyyil boyal rekk say cër cër bu nekk di def lu nekk kay jomm jemme kay wëreelu fu ne bul wàcc say bul wàcc say cër ñu mel ni béy yu dagg di wéy yeewal sa cër yépp nii béy farlu farlu gu ne yëral sa cër yépp yaral sa cër yépp bul sàggan ku sàggana bon day yàq kay yàqalee kay son la pegg ne laabal sa làmmeñ wi yow làmmeñ aku fa sa yam buy ci dem fu la neexul faw diigu ko yow muuñal te noppi ku noo soo noppi gën ku ne tey ku noppiwul lee ñu xañ koy gaayu baax aku yiw malul ku xam malu ngir wii waxtu kenn du ci wax ku dul ku dof na nga malloo mallu ndax te nga raw ñu tuuta mucc ci làmmeñ ak loram te ko daw ba mucc fawu ci làmmeñ ak loram matanaw wax day jañu yiw di ñoddiw ay di wàññi njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sàkkul lu lew loo def ci koll bi yow bul def ci sab koll lëf loo xam ne lii léerul yëngul te yëngul ba am loo xam ni sell na lew moo gën di wéy ci luy jëkkul jaaduwul baaxul ruujal ca teele ba kenn ruujul te farlu ci bay mbaa sax nga jóg jëlo gis lëf tey mayoo tilimal bëggal njariñ fawu tey bañ lor bañ lu ñu jam tey sant yàlla kadaw loo xam ni lii leerul yootul ci sab loxo yow yootul ci sab loxo saw yiw rekk ak sa njariñ bul def ci sab loxo lëf loo xam ni lii du njariñ xel day xalam xalamal sa wiihu te sax ca bu wér loo def te jëkk xalam loolee mu ñàkk njariñ yarul te bul baj bajee kay yëngalub loxo yow di rëdd suuf ak foo kay def lu ñàkk njariñ bul def ci fay ndare aw loo ci def lu ko moy mu dig mbugal ci yow loo bañ te kenn du ko faj yàllante ngay muñ dinig yàlla ak a def la war ba yàlla dikk ak nga faf sa aajo yi faj moyor lu ñuy faje aajoo kii tawat ku ko nekk mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj tënkal sa tànk yi bul dox mu ko jëm ci lu bon jëmal ci tool ak sëriñ ak jàkk ak yu koy jëm ci lëf lu ko dul faj lëf du sangi mam bul jëm ci lëf lu la dul faj lëf muñal te jubal kuy dox di dem fenn kay daagooka dox lu ñorul du am ci yàlla lu ñuy naw mukk dee su ko fal yom ak yoxeet jëm ci ak mooy jekki faw a ko gën jekkil sa kër mbaa nga jóg yow jëm ci luy yéwénal xoolal sa xol bi le yow sàmmal sa xol bi le yow ngir xol bi xol bi dugg ngir xol bi dugg la lay teg ngir xol bi dong lay teg bëtam ak si ak a xoolal sa xol bi le yow sàmmal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yàllay teg bëtam ak a seet làqul ci yàlla bu sab xol jëm ci lëf lu ko moy yeewal ci yàlla sa xol buy bëgg a dem nga ni déet baaxal jubal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak teet baaxal jubal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak teet sëriñ bi kenn la maasam musla am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yi nu xam mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni ibra faal ak seex ak ibra faati nu gis sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a xëy daje bis te dikki def nii nu def jébbal ko seeni kurus day yokk diine di ful warsak di guddalu fan di fekk lor ak tartar ak kër-kër ku weddi na mos ku mos moseeti ko ngir suukar la waaju ko mos moseeti faw mosal bul faala yow ku la ku fas ni bamba sama asum baaya dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem lambar na del si nu gis ku ni bamba sama asum baaya dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem lambar na del si nu gis subhaana a rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin